ayca ayca Double. mais mais mais Double maa lay bëggee de. mais ci lool nekk baa yaa ngi am jàmm. waaw ñu ngi sant yàlla bu baax. tarkalla mais Double Double bàyyi nga coow <laughs> bàyyi nga coow rëy Sénégal. <laughs> <laughs> démb ñoom bégaay génn nañu. gars yi ñu ngi wax rek. Papa Dieng. gars yi wax seen rek. ah. gars yi wax seen xalaat war nga war nga war nga dellu na da am cër ci làmb. mooy comme li ma la wax rek suñu émission yi Mm-hmm. like am na loo xamante ne bàyyi naa ko foofu moo waral boo gars yi di ma tudde ba tey mm-hmm. moo fa bàyyi woon dara kenn di ma tudde fàtte nañ ma kon kon yeneen ñu bëri bi ñee fàtte dëgg la so bu fekkee gars yi dañuy toog di tudd suma tur ba tey xam nga di xamal di gëmloo askanu Sénégal like man dama mm. bokk si làmb so mm-hmm. ñoom seen yéene daal ma foofu daal parce que parce que père Papa Dieng wax na ko nee na bëre bi xel bi relonge bi dox bi ambiance bi dox bi fecc bi ah loolu la <laughs> gars yi nam wax ji sax day bëre mais saa yu ko yàlla tudde rek ay ci incha allah xam nga ay ci kon mi ngi noonu non eh, eh, ca ca ca caay bi nag ay yaakaar naa Moustapha dañuy dellu si waat ci mbër yi États-Unis dañ ciy dellu parce que yaa yaa plus de cinquante lutteurs ñii ña nga Espagne ñii ña New York dumbul dumbul talent bu wóor <laughs> quel talent quel talent waroon na doon mbër warul doon champion ya xoola New York moom boo fa duggee ay mbër kese ngay gis dañu xeexal dañu laale dañu laale dañu laale dañu laale de du mu day xeex barke Rasulullah day xeex wóor na yàlla day xeex day dem dumbul day dem dumbul day dem door na day dem wala ngeen a takk rek ñu ngi doxal wet ñoom ñaar daay daje nañu daje nañu daje nañu xeex ba daje nañu laay laay lañu xeex dumbululi dumbululi de laa ilaaha illallaah waay Yoff amati na ndam Yoff amati na ndam wuli de daanu na dumbul daanu wuli de. Jaguar yàq yàq ci làmb Jaguar dem na bu yàgg. dem na bu yàgg kenn mënu ko compter. kenn mënu ko compter loolu loolu loolu ak du yàq làmb. bon dina yàq làmb parce que ñooñu tey jii euh, euh, moment bi war na fekk ñuy ñuy doxal. sam mais moo tamit. Samba Law bi Italie la des. dana Matar Gueye. waaw jox ko micro. du ñu jeex du ñu fi jeex. Samba Law be. Samba Law be ak Matar Gueye Matar Gueye. Matar Gueye dem na. mais Matar nag da comme comme baam moo daawul bari. day dem du ñëw exactement bu ñu mooy li bu ñu dañuy découragé à un moment donné dañu toog du ñu am combat comme ni ñu ko waxee El Papa Dieng ñaari mbënd bëri ci écrit bi ngeen nekk 100. ngay wut di wut munoo am boo jéemal faxasolo daanu benn combat rek dootoo bëggati ci làmb tax ñuy lijjanti gauche droite mais nag aussi am na ci ay mbër yoo xamante ne nag ci combat la ñuy nekk promoteur bu leen euh, duggante ñoom gauche droite ba ñu am visa ñu du ñëwaat mu dumbul dumbul amul njëriñ dumbul toog ba mu toog foofu amul njëriñ la mati wala dafay def cinquante ans du ñëwaat déedéet bu defee cinq mois la waroon ñëwaat parce que xay itam du ñu leen ñu ci bari comprendre luñ ne états boo dépassé sa euh, validité euh, euh, passeport cinq mois yi. c'est mort dafa duggati c'est fini amul kenn bu <laughs> ñu ko comprendre nag bu ñu defee cinq mois dañuy ñëw. mais léegi nag ñu ngi am sax dix jours delluwaat. waaw léegi ñu ngi wut soxna nag. <laughs> américaine wut soxna am këyit. waaw ñu ngi wut soxna am këyit El Hadj Papa Dieng. ci lu yàq làmb la. dëgg la. Ah. puisque ay talent perdu la. ay talent perdu. quand même parce que ay champion la yoo xam ni comme Dumbul rek Dumbul ça fait mal qu'il parte. ndax physiquement. interdit ak ak ni muy. lépp mbër la lépp mbër la. lépp mbër pecc meeg bëre xel meeg lépp. Mhm. donc c'est un talent perdu. je crois que mu toogoon fii lu mu bon bon bon bu fi toogee deux bu bëree am na de forte chance daan. dina mën a taxaw ci làmb ji. dina mën a day am position. day am position. day am position mais malheureusement je n'ai pas compris son exil. waaw moom ñëpp waroon oh. xam naa dollar bi moo xaw <laughs> diis. ak xanaa jot nag ak CFA bi dubul yow dubul yow dubul yow dubul yow dubul yow dubul yow yee doomi Yoff dubul yow sama gaañu yëngul dëbbul yow yéen borom Yoff dëbbul yow yéen borom Yoff ne la dëbbul yow dëbbul yow yéen borom Yoff la la laal dëbbul da koy neex dugul soo jàppee ngay daan dugul yëpp a ngi sa ginnaaw hey lu ma ko dëggal dëggal dumul lu ma la dëggal dëggal dumul lu ma la dëggal dëggal kon baax na kon baax na dina ma yëngal dumul dina ma yëngal gaay dina ma yëngal Double Lune dama yëngal waaye de loolu am na benn vide bu muy def ci làmb mhm. li Alaaji Papa Dieng wax sànq wax na bokk na ci ndaxte benn écurie benn nit dafa bëre ñaari nit da ngeen doon vingt waaw loolu day metti découragé ñi nga xamante ne ni ñoom it ñu ngi ci làmb ji te duñu bëre